monsieur le président euh, li tax ma ñaan euh, motion préjudicielle ni ma ko article 75 bu assemblée nationale mayee moo di ne le président man dama déposé dama déposé le 19 février 2024 benn proposition de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour xool saytuwinu budget assemblée nationale diggante octobre 2022 ak octobre 2023 ndaxte man mii nga xam ne maa bokk ci commissaire aux comptes assemblée nationale ci diir boobu musuñu woote réunion musuñu rendre compte musuñu def rapport musuñu def dara te xamuñu 20 21 22 23 milliards yooyu fan la jaar léegi ci ginnaaw boobu président Macky Sall indi projet de loi lan moo tax ñun bu ñu déposé ci sa table yow président de l'Assemblée nationale doo ko xool te bii mooy ñaareelu yoon première fois bi mooy samay mbokk député PDS ñu indi fi commission d'enquête parlementaire fekk fi sama dix commission d'enquête parlementaire yi ma déposé entre octobre 2023 ak décembre 2023 yow président Assemblée nationale ak sa bureau ak sa conférence des président ak sa majorité parlementaire ngeen pousse dix commission d'enquête parlementaire yooyu xool ba su waa PDS bii mooy deuxième fois nga koy def nga teg ko fan monsieur le président de l'Assemblée nationale nga teg ko fan ndax dafa am ñaari député ndax dafa am député am ndey ak député amul ndey lan moo tax fii ci Assemblée nationale ñun bu ñu déposé doo ko xool te bu ñeneen déposé nga xool ko loolu du yoon ndaxte règlement intérieur bu assemblée nationale da ko dàq loolu moo tax ma ne ah comme du ko xool nag kon c'est difficile ñu ne ñu tey ngeen ñëw nañu ñun jàmm la ñu bëgg ñun jàmm la ñu bëgg c'est pas vrai l'autre nom de la paix c'est la justice l'autre nom de la paix c'est le respect des lois et règlements donc mënuma gëm majorité parlementaire bi bu waxee jàmm moo ko fi indi te muy fouler au pied les droits de da ngeen waroon wax dara ci sama proposition de mise sur de commission d'enquête parlementaire balaay projet de loi bi déposé naa le 7 mars 2023 une proposition de loi pour la modification des articles L29 L30 et L57 du code électoral principe la ñuy parce que da ngeen di wër fu nekk di fen naan projet de loi bi pour Sonko pour Pastef la pour détenus politiques yi ma ñëw fii pour wax leen ne da ngeen a respecter samay droits de député da a respecter samay droits de député monsieur le président de l'Assemblée nationale ce n'est pas normal tout à l'heure vous avez fait une précision à mon collègue Sanou Dione j'attends une précision de votre part pourquoi systématiquement systématiquement quand on dépose des propositions de loi quand on dépose des propositions de commission vous les foulez aux pieds, vous ne les regardez pas. Et quand les collègues du PDS déposent, vous les regardez. Quand le président amène, vous regardez. ngeen teg ko fan bu ñu buggee jàmm dañuy respecter les lois oui nañu génnee Ousmane Sonko waaye nañ ko génnee par l'abandon des charges et pas une amnistie qui protège le fils du président oui. nañu génne tous les détenus politiques parce qu'ils n'ont rien fait mais pas une amnistie qui protège le président son fils ses hommes et ses femmes demain abandonnez les charges parce que ce sont des charges fausses fallacieuses monsieur le président j'attends de votre part comme vous l'avez fait tout à l'heure de manière si courtoise de manière normale à mon collègue Sanu John j'attends que vous me disiez pourquoi systématiquement vous Et quand vous le faites, ça ne trahit qu'une seule chose. En réalité, c'est ce qui vous arrange que vous regardez. Le len arrangé ou le len ce qui montre encore une fois que ce projet d'amnistie n'est pas en faveur du peuple, n'est pas en faveur de PASSEF, n'est pas en faveur des détenus politiques, n'est pas en faveur de nos martyrs, n'est pas en faveur de Ousmane Sonko, n'est pas en faveur de notre candidat Bassirou Diomaye Faye, mais c'est en faveur président, qui est le parrain des qui est le parrain de ceux qui ont blessé les gens, qui ont assassiné les gens. C'est ça la vérité. J'attends votre mise au point, Monsieur le Président. Ce n'est pas normal. Il ne saurait y avoir deux députés, deux citoyens. Merci, chers collègues.